voilà mbokk yi gannaaw bi nga xamante ne gis ngeen Alioune Mané ak ki nga xamante ne moom mooy Soundiata maa ngi dem ci suñu deuxième grand combat bi mu war a opposé ki nga xamante ne moom mooy abu Niassé ak ki nga xamante ne moom mooy Moustapha Guèye numéro 2 euh, ñu bàyyi ko mu nuyook mbokku téléspectateurs yi ñu dugg ci waxtaan bi champion maa ngi siyaar. waaw ñu lay fay di la ziar di la jox sa wàccuwaay di la wax ne bienvenue waaw. nga jëm ci combat bu mag nga jël Abou Niassé lan moo tax nga jël bu noo xam nga làmb ji dafa am xale yoo xamante ni war nga leen jox chance ndax euh, mérité nañ ko waaye am na xale yoo xam ne joruñ jox chance parce que defuñu ay exploit yoo xamante ni mu nga ne war nga mën a jël te booy dañuy def seen exploit am na ñu ne ma combat mujj dafa daanu mi la ah, loolu am importance la nga ci combat bi moo sens te xam nga booy toll nañ foo xamante ni tamit bu ñu leen joxul chance kenn du leen jox chance ci àdduna kon moo tax ma profité combat bi jël ko jox ko chance am comme ni ma ko joxee yeneen booy yeeg ñoom Ama Baldé ak ñoom Bathie Seras war dem ci booy di war a dem xaw ma ne ndax dana mag ndax day ndax xaar. mais xanaa loolu moom mooy da koy yombalal mbir yi. xam nga sens du yombal sens du fekkee joxe sens moo yombal kon ñu bari dañ daan armée bu ñëwee di ma ko joxee sens bu mu ñëwee dama ko daan mën naa la jox sens nag nga bari man mais ay daan nag bëree yooyu loolu si loxo yàlla la nekk waaw loolu du ma ci wax gum quoi li li am solo daal mooy combat bi taxaw na waaw te pare nañ bu bari ko. ndax ki ah, ki ko tëgg suñu xarit la Lay Ndiaye ah, te grand bu baax yéen ñu lu ne si àddina niveau nga jox combat bi parce que tamit gëj nañ laa gis ak ay victoire hmm? ban niveau nga ko mën a jox aussi. Euh, victoire man euh, su ma juumul euh, ñaari défaite laa tegle parce que je pense que Quench moom a daan ak Tafa mbër waaw te ñooñu ay mbër lañ waaw. déjà nag combat bi empleur bi ma ko mën a jox mën na yomb fii. ñu waxtaan def def mais xam naa ne bisu combat bi dina xaw a jaxasoo parce que am na yoo xam ne man <laughs> ko nangu. déggoo ma de dafa ma ko nangu laa wax. mag laa aw ma doole ma dara mais am na yoo xam ne ci biir làmb suñu moom def na du ma ko nangu. am na loo xam ne ma ko nag su ma ñëwee naa ko exploité suñu suñ bu jàllee mu baax bu jàllul ma xam ne suñu borom loolu def làmb noonu lañ koy defee mais mënu ma tax ne maa maa am làmb ji maa koy daan ndax du ma yàlla kon làmb ji nañ ko bàyyi ci loxo yàlla. loo koy wax. ah moom moom toujours mi ngi entraîné doo ko wax entraîné jërul xanaa mu góorgóorlu rek combat bi ba dara war kaa jot moom fekk ñu sat incha <laughs> gëm nga ni da koy daan. dégg lu la wax loolu mu ngi ci yàlla. mais gëm nga ko. loo gë lu nekk si loxo yàlla noo koy gëmee boo ko bàyyi yàlla kañ jatu ngay gëm da nga koy bàyyi yàlla rek ba suur ba lépp mu su suñu loxo suñu borom man xam naa li li wax naa la nee naa la su ma ñëwee ba stade am na yoo xam ne man du ma ko nangu. waaw moom bu nekkoon fa war a nekk. du bë du bëri Tapha Gueye numéro 2 fi mu nekk tax te man su ma neexoon du ma bë du ma bëri moom. yaa ko raw ci làmb. Euh, du question du question xam nga xool ci différence combat yi ak li fi jaar bari na te tarkindaa la <laughs> te man turki laa. <laughs> wax ak yow de xam naa ne Siteu moo koy andi. te man dinaa fexe ba Gris Bordeaux andi ba. lan Gris Bordeaux andi ma. di gërëm euh, euh, di gërëm mbër yoo xamante ni du ma tudd seen tur waaye xam nañ seen bopp bu baax kenn ki ñoo dëkk fële sama xarit la day ñëw sama salle fa lay entraîné yàgg nañ toog sama xarit bu baax ñu ngi déggante léegi di keneen ki numéro am 18 lañ mujj chaque jour mu solo ma waaye du ma wax kan la mais ziar naa leen sant naa leen di leen ñaan bisu combat bi euh, yaa na suñu a may ma ndam lu rëy ma dóor ko muy fayee ko ma jaar ci wet gi mu toog. mais Tafa Tafa Tafa d' accord daa tëj nga émission bi mais Tafa loolu ba kañ. loolu ba kañ nga foog ne Tafa nga foog ne non ah Tafa loolu mënul wéy dóor mu fayu ma daal ko. ba kañ mais xam nga c'est que wax nañ ko bu mu jeex. mais Tafa loolu mais Tafa loolu ba kañ aussi booy yi est ce que foofu lañ lay xaar. xam nga ne booy ma tëb tëb mën na këlëb toog. waaw mënu am. waaw wala maanaam da ko jël mu teex ma. waaw mais booy yi foofu lay xaar xam nañu tafaa noo def mu ñëw ci tànk kii ma àndal ni sànq nii xam ne ma wax ndox ba si yàgg mën na ma mbër jël nga de mën na ko maa la ko gën a xam yow gérer rek kulal ma ma maa yow jëloo maa jël mu ngi ne toog Babacar mu ngi ne maintenant la jógee nii mu ngi doog a yëg combat bi dama ko nëbboon ba tey ma koy doog dem mu ma jël nga combat bu ma ne ko maa la gën a xam bu diis mais man nan laa ma gérer ko sama bopp xam nga dafa neex. mais tëf nga daw ci suuf ko ba la wax ne mën naa jët muy dem ba ma xamoo toog. waaw loolu laa wax dama ne est du foofu lañ lay xaar est-ce doo ñëwaat feneen. waa mais xaar xam nga xaar nit nit kii gis ngay xaar mais koo gisul na koy xaaree. Abou Ndiassé maa ngi siyaar. waaw maa lay fay. nga jël combat combat nga jël Moustapha Guèye 2 lan moo tax. balaa maa wax si loolu. ginnaaw ginnaaw bi ma sante yàlla julli si yenent bi sant samay ñaari waajur di gërëm sama sëriñ sëriñ Sidi Mbacke xam nga di yërëm sama ndey. nga jóge ci defet daal di songu Moustapha Guèye 2 lan moo tax. waaw maanaam li ko waral bëri na. maanaam ni ma la ko mën a waxee mooy combat bi amoon na sax ñu ko bëgg mais xam ma man it xale laa rek nekk ci làmb bëgg si dem fu sori xam nga dëgg la dañ naan ma jëlal ma jël samay xarit bu ñu nee ma jëlal ma jël bu ñu nee ma bàyyil ma bàyyi xale laa nag ñu ngi ma doon proposé ay yeneen combat mooy xëy na tamit dafa jotagul rek waaw. mais Moustapha Guèye de nekk koo xamante ne expérience bi macha allah mën bëre bi kenn waxatu ko mu nekk phénomène hmm? lan moo tax nga jël ko. waaw ma ciy santaat li tax ma ciy santaat moom balaa dara moom maa ngi koy sant di ko gërëm ndax li ko ma koy sant di ko maanaam mbëri bëgg a moom bëri na. bëri na torop xam nga kon bu dee xam man mii la ñu xam nga taamu tamit pour bëreeg moom man it ma am kontaan am fierté pour bëreeg moom ndax xam nga maanaam moom. dama ko seetaan li tax ma ne la dama ko seetaan ànd naa fekk fëgal li may wax yàgg na du tey stade Assane Diouf kon xam nga loolu yàgg na hmm. mu daan ko fa xam nga te loolu man mën naa ne booy laa xam nga kon loolu noonu ba léegi bu dul dara mu ngi suma bopp. te ba nga jël revanche boobu. yee parce que làmb la rek. mais revanche boobu mu ngi sa bopp. déggoo làmb boobu toujours day def sama bopp mënul deñ sama bopp parce que mënuma ko fàtte. kon tamit loolu sax dolli na si lu tax ma gën a jël komba bi combat bi nag li tax ma jël ko mooy xam nga dama ko jël pour maanaam ñu waajal ko xam nga di woo sumay mbokk di woo ñëpp parce que man xale laa te xam nga maa ngi sant yàlla nag. mais mais mais Abou boo boo ma indilee ay xale laa maa ngi koy sant di sant Moustapha Guèye da mel ni ko ko fan te nga war a bëreeg moom aussi est-ce bi du dis yow. non faawuma ko dama ko respecté xam li tax ma respecté ko dafi bëreeg champion yu bëri daan leen ñibbi. mais gars yi duñ fi nekk di ko gërëm ak sant de gars yi dañuy ñëw indil ko lu mu attanul parce que boo ko bàyyee mu xalaat tamit. yee loolu du si am ndax man xale laa. donc doo ko bàyyi mu xalaat. non loolu du si am li may ñaan yàlla mooy yàlla may ma dem te gëm naa ni dafa may defal ndam. lan ngay wax Moustapha Gueye 2. waaw di ko wax moom mag la. mag bi nag du cadre ñàkk ko respect wala dara. combat bu ma war a fonk la ndax mën naa rek combat bu ma mës a bëre bii moo ko gën a mag te loolu laay ñaan yàlla. moo bëri mu yàlla may ma ndam ma jëlaat koo xam ni moom ma sut lees fuuf bu ko neexee na taxaw man fu mu nekk ma fekk ko fa jàpp ko waaw parce que man maa soxla moom prouvé na ba pare bëri naa ku nekk champion la. mais bu ko neexee na taxaw. waaw li tax ma la lool mooy moom mag la man xale laa. dégg nga euh, dégg nga Moustapha Gueye de dafay da ngay ne teel daf ne tëf nga daal di fayu rek mu daal di jiwaat la ak yow. loolu du si waajal nga lool. pare nañ ci lépp booy bëreeg moom war nga xool bu baax li ngay def ak li ngay bëree. comme moom li mu wax rek nee na dina fexe bu Gris Bordeaux andi ko man dinaa fexe ku ci mel ni Siteu Fëgala Lamsaar safla la Nees Tiijaan Nekorel ak su may mbokk ak su may xarit su may am ni jàmm ñëw ñoomit it andi ma. waaw di tàggatoo li may wax rek <coughs> man nag xale laa mën naa ne yàgguma si làmb mais maa ngi ciy sant yàlla di wax xama di woo jeunesse bi lay njëkke woo ndax man yàlla natoo na ma fépp la ma nit di supporter yàlla natoo na ma loolu xale laa nag mais man ci sant yàlla di woo ñëpp comme niñ ko daan defee xam nga di ko waaja di leen wax ne stade bi soriwuñu tout pere la na ñëpp ñëw xam nga mobiliser wu jàppale ñu jàppale ma ñu feesal stade bi ba wane ni ñu dañu bokk ci làmb parce que loolu lañ gëm dañu gëm ni stade bi incha allah stade bi dañ koy ràmbet bëre daan ñibbi.